ci fan yii la jëm. da ngeen def yéen nii la demee ah. mais Pago. salaamaaleykum. ah waaye ni ngeen def. yéen da ngeen di déconné ah. bàyyiwul yoon bi du baax de. la kon daal ci kaw la mel ah. mais bébé aji gis naa ko. ah mais waaye ñu ñal la waa groupe kanam. danaa xool fan ay fan sam la jëm ci ay fan sam. ah mais kontaan

waaw yaa ko tey waay ah yaa ko tey waay pap gis nga nu ñu la bëggee waaw bu la kenn xalaat loo bu la kenn misee loo li ñu am mooy suñu xol jox nañ la ko mukk Sabina Bandam déglu nga message Thank you.

Abass yaa ngi jot. nga xam ne si biir sala nga xam. yaa ngi sa borom kër yaa sagal sa borom kër waaye yaa sagal sa borom kër. Abass yaa ngi jot yaa bëri mu la yaa bëri. waaw wuyu la ba eh. waaw wuyu ma da nga ñu may million. kër gi bis nga sant bi lay demee. chaque jour fête chaque jour anniversaire. waaye demee baas waay. xam nga loolu lan la si ñun. waaw fexe na law la jëm. waaw balu bopp ju fa. téye na ko téye na ko demee baas. waaw téye ko dana baas tey gis ngeen la yaakaar naa ne ah tey nag kontaan naa. ah tey nag def góor yaay nit ku baax yaay nit ku baax yaay bee baax yaay nit ku baax waaye dama ni waaw dama ni dama baax jàngal na iim arabam mënoon mënoon man dina sama bien waaw monsieur le maire sama bien kontaan naa jaajëf di nga yàgg di nga wér di nga am jàmm di nga am tawfeex micro bii la yàlla jox Ismaël demal la jëm. ku déglu nag. waaw ngi ñaan ci ak yonent bi ak Sëriñ Tuuba. na nga fekk déwén. amiin waay. ndax may wax lu ma la. li waral mu ma. dama koy wax sama mbokk mooy sa bopp yàlla boolewaat ñu ñu bokk dëkk ci benn koñ waaye Pape Cheikh dama wax na ñaar rek am ci àdduna te moom jël na benn bi àdduna baax ak bono fi ne baax ak moom Kéba. mais bépp si. may leen waay. mani. may leen waay ngeen dégg. mais ut leen videur buy may bépp muy jàll waay ah. c'est très important ah. parce que Demba Ndiaye la jógee Màkka. noppaloo kooku la ah. ah non il faut ñu arrêter ah. jërëjëf dama ne. baax ak moom rek a fi ne. moom ñun na baax. baax ak bon. ñoo bokk benn bàyyi bu leen jur ndey la ñu bokkal. dama leen di wax mooy kan baax ak bon seen bàyyi dëgër bopp la tudd dëgër bopp jur baax moo jur bon boo dëgëree bopp ci lu bon ñu génn la ci génn nga të bu loolu bon wuy see nga xam ne lu bon rek a bon waaye dëgëral bopp ci lu baax sax ci bu la lu baax wuy see nga xam ne lu baax rek a baax li waral ndey foor nag ku la gën ndey na gën moom ndeyam dafa baax dama wax ne bon day ñibbi kër ndeyam baax ñibbi kër ndeyam bon bu ñibbee kër ndeyam ñett bi jaayam a koy teeru muy soxor mani ak nay mbooloo mi nañu recevoir goûter yi sans bruit may leen ñu wax la baax di ñibbee kër ndeyam li ko dal baax bu ñibbee kër ndeyam ñett bi jaayam koy teeru muy jéggale jéllale ak dimbale te ñett ñooñu ñëpp a ngi ci moom bi mu taxoo ci koñ bi dafa ñëw ba ci kër gi may baayam mu def ma baayam dugg ci biir koñ bi moo jabaram ju baax ji bébé jabar joo amal doom yu bari mën na laa soñ jéggi dayo nga wàcc ko jabar joo def alal ju man a na laa tol tol gu jéggi dayoo nga gedd ko gedd alal ja mais jabar ak jàmm kenn du ko te bébé ba safaani jàmm xam Cheikh xale yi nii boo xam ne bi ma koy présenté dem ci lamb ji bi ma koy laataa dugal dama leen kenn dégg ko ci lenn la góor kon doomu aadama bu xamee fi mu bokk bàyyam doon imam tegal ko Cheikh Diouf tegal ko Cheikh Diouf mi ci alxuraan bi bari ndeyam inel ma bébé fii war na mën a mel nii Pape Cheikh yow li ñuy wax yow li ñuy wax inel ma bébé inel ma sa bopp alaaji bu Njaay àggalil mbooloo mi mbooloo mi ñu teewlu tuuti waaye ah. dama ne waaw papa àggale waaw waaw waaw. ku la gën jabar gi baax la gën. waaw te bébé baas suñu jabar ak jàmm la. ajaras bébé baas. léppam Pape Diouf lu Pape Diouf wax la wax lu Pape Diouf bëgg lay def tey ñoo bokk koñ bi waaye kenn du ko def la barke yonent yàlla moo la kon yàlla na yàlla defal amiin waaye laa lii uh-huh. yow la uh-huh. man day xam naa ne dafa ne Pape Diouf rek la. ni ah. mu lëkk lay lëkk. Ah. waaye loo bëgg. ak loo doxal Pape Diouf da ko baax. wax na ko léegi yal na ko yàlla defal jàmm. loo am ak moom yal na ci yàlla def loxo. Pape Diouf kenn demul. soo ni ko mani mbooloo mi baaboo yi lu ne daj na ko ci carrière Pape Diouf mbooloo mi fàtte xaju fi wax naa ko léegi nee naa ko baaboo yi borom tàkkusaan yi barke Demba Ndiaye bi ngay rëpp Gris Bordeaux di rëpp tubaarkàlla daaraan yi rëpp tubaarkàlla macha allah képp kuy daaraan yi amoon yaakaar teew nga rëpp ko waaye taxulaa beew Baboy loo bëgg a wax. non li ma bëgg a wax rek. mooy mais li mu bëgg a wax mooy. man li ma wax damay jóg man parce que mënu ma triser. ne mënu triser. Pape nit ku baax la. ne Pape nit ku baax la. waaw euh, Pape. Euh, dafa jógee Pikine ñëw mais daa jógee Pikine ñëw dëkk si fii. bu ko neexoon mais bu ko neexoon. day wax ah kii daal Pikine mën a xam. non day wax la Pikine la jógee. du def lu ma yëgul. waaye nee du def loo yëgul. nit ku baax la. mais nit ku baax nga. nit ku yëg nit nga. nit ku ma fonk nit ku ma fonk nga. nit ku ma respecté nga. bu ma rombee sax bu ma rombee. day arrière oto. ne. la princesse ajaratu. Ah, seen kër la soxnaam. fanaan ba may. dégg seen kër ah, na xam Ismaïla a ngi nii toog. moo na am combat rëy. moo na am rëy. foofu laay làqatoo nee moom foofu laay làqatoo. kon tey ñi ñëwee taxaw kon ñu dëkk ñu dëkk. mu ñëw mu ñëw. dox ak tànkam ñëw ba sama kër dox ay tànkam ñëw ba ci kër gi. ne yow yaay suma mag ne yaay suma mag kon kon. bu amee bés bi bu amee bés bi tey. juguma wax ci dara. juguma wax ci dara kon ma xam ne man du ma kon ne ma lay nawee rek. mooy am nga yar am nga yar am nga nga teggin te sama soxna fu toog ba trois heures du matin fii la fii la barke Serigne Touba a dugg kër ba lekk fii rek fii rek fii rek kon yàlla na yàlla defal gudd fan defal la wér léegi mbooloo mi ma ni ma ni may ma ma dugal Tafa Fall rek après jox la président des nag benn baat rek. may wax rek. li may wax bàyyiwul. kon dama la gën a yëg. waaw waaw demal. daa am lu ndaw lu may wax. waaw ñëwul bàyyi. gannaaw Ibra day tax. waaw ñëwul. dama ni waaw. dafa am lu ndaw lu may wax. waaw. damaa bëgg nga topp sama digganteeg Pape ndax li may wax ñeme naa ko sama jëm ñeme naa ko. waaye agressé bi ñu may agressé bi ñu may agressé moo ma jiital ma. agressé wu ma dama ni. ma topp ah. ma def nii wala nii. toppal sama digganteeg Pape ndax may wax ñeme naa ko te fi ma jëm ñeme naa ko. ñëwal day ñëwal. <laughs> maa ngi nuyu mbooloo mi du nuyu kilifa ak jotaay bi. ndax dama ko dégg léegi ci baax. muy El Hadj Ismaïla baax mi baax mu baax mi toog. daanaa dégg nag mag mu baax daan wax naa lantinoor du téye du téye diw bu diw gi jaaree ci moom rek dina fexe ba fépp niin kon su ma nuyoo Ismaïla Bass mais naa njabootu baas gi fi nekk ñëpp ndax dina fexe ba fépp fii fépp nii maa ngi nuyu nag fa tabaarakallaahu Ibra mu baax muy to suñu mag di xaritu Pape yaa tax moom la bees ko firi ci gi cawaar maar dama ni ko léegi fi nga toll làkk ni saw fas keneen ku dul yow ba mu fa tolloo jafandu day na ko liggéey xale yi Pikine fa tabaarakallaahu kenn taxawaaloo ndax sa jom lat ñu ko mi ci ñoom daaw ñu ko mi ci sàqaay booj aali koon saraame ngi say grand nga baax bu yàgg ànd ak pap li tax ma jiite si yow nag fa tabaarakallaahu kilifa bu mag moo ma boole woon ak yow muy Serigne Giri Abdou Fatah moom Serigne Fallou moom Xaadim Rasul borom jumaa ji bali si bu sëñ Mbàkke Maaram loolu wax ma fonk la yàlla yàlla guddal sa fan may nuyu nag fa tabaarakallaahu nag ki war a yëf damaa bëggoon rek nga topp sama digganteeg Pape damaa bëgg mu déglu ma bu baax a baax. jërëjëf damaa bëgg nga topp sama digganteeg Pape ndax damaa bëgg mu déglu ma. la kii wala kan. may nuyu Pape Cheikh Diallo bu baax bii. baax nit ku gore kii. waaw Pape Cheikh moom moom jar naa exister. nit ku am maanaam. dama ne waaye nañ ma déglu waaye fi ma jëm yéen a naan fa. nan ma déglu. bu ma déglu ak dégg-dëgg. loo wax du ma si dellu. maa ngi nuyu nit ku gore kii ku bari maanaa kii ku bari valeur kii koo xam ne tey fa tabaarakallaaw li tubaab di wax ci baat boobu rek laa xam ci français ndax damaa ñor lool c'est l'expérience qui fait la différence daan na foo yegg tey sa jëmi bopp ak sa fullay bopp ak xam sa bopp ak nangoo liggéey fa tabaarakallaaw ba boole boole kook nag am nawle barki demoo Ndiaye damay pousse TikTok bi ba yàgg yam ci yow ma woo sama soxna ba mu ñëw ni ko chef mu ne maanaam ma ne ko kaay mu ñëw ma ne ko Pape Cheikh ku ma neex la mu ne ma lu tax mu neex la ma ne ko ba dadul tontu lu bon lu baax rek lay wax yàlla yàlla guddal sa fan musal na ci banque bu am fit fenkat bu am daraja yàlla na ci yàlla musal di nuyu nag Pape Pape Cheikh di nuyu nag tubaarkàlla ki waral lii avant loolu damay nuyu bébé bas bu baax mii la princesse daal góor bii may ma ñëw ñëwul nii damay nuyu nag ba bébé bas baax mii daal bii ki demul fenn dajewuma ak yow fenn gisuma la fenn gisuma la fenn yaa ngi toog ci sa beegu jëkkër insister ci moom fa tabaarakallaahu te loo digg te loo dégg ci réew mi dañ dara ba lool ba gore lool kër ndax lii wane na ah di mujj baax ci toog Ismaïla Bass mi demul fenn président danaa si ko yóbbul président ku la ñor la loo mu toog kon yal yàlla guddal sa fan amiin waay waay papa fi daanaan dama ni anniversaire bu ne am waaye la l'histoire de Thiénaba xam nga lu dama ne l'histoire de Thiénaba li nga gëj a gis ci Dakar ñëpp a ngi ki sa mbaax ko war ki sa goree ko war ki sa mën lu ko war takat kaay yow tontoo kenn yaa ngi ci li nga war a ne teel a guddee wàcc dund woon lenn lu dul sab nga boole koog nag liggéey jaamu yàlla dimbali nga dee sa askanu ndey damaa dem Paris damaa dem Paris damaa da ngay sama mag nag te tubaarkàlla macha allah mënoon naa wax da ngaa war a ràmbee ba tolloog ma kon da ngaa yéeg ci taas gor li mu gën a bëgg ci doomu sàcc li mu a bañ mooy yëg yàlla li mu mag a gën a bëgg mooy poye mooy dëgg de dari salaamaaleykum yëkki tribune bi mu ne gas yan si noonu ba ne kii alal ju bari may ma daral ma nag yal na yàlla guddal sa fan yàlla musal la ci banque bu am fit musal la ci fenkat ba am dara jàkk dem bu ñëwee musiba ko balaa ah, maa ngi lay ñaanal nag wërsëgu Ndakaaru tiraangal ner barke Touba yal na la toj Abdou Faye Abdou Faye waaw Ismaïla dafa te mbaay li mu wax kenn mënu cee tegaat dara. loo ci bëgg a teg waaye suñu digganteeg Papa Diouf. bu xewlee bis mel nii. ñëpp ñëw teew. Ah. am nañ ci ay kàddu ci moom. mooy dëgg rawatina mu ne la nag Sénégal la da daan teg. mooy dëgg waaye Modou Mbaye borom bu baax bee tooñ. di El Hadj Ismaïla Bass bu El Hadj Yoro Bass. le président nee naa ko bu sa bàyyi ñëwaatoon doo référence sa toogaay li bu sa bàyyi bàyyi dégg ko ba laalu suuf El Hadj Ismaïla gore yiw mën lu baax mën a dimbali doomu aadama te kat Ismaïla Bass njabootu baayam bi rek ko ñor seetaan leen benn yoon yàlla yàlla guddal sa fan waaye Ismaïla waaye Papa Diouf may sant bu baax Pape Cheikh Diallo mooy dëgg yow réew mépp amel nañ la jukkal dëgg la yow da ngaa mën lu baax da ngay fekk ku doonul dara nga fexe ba muy dara ba pare ariyaana du man barke rasulaay di nga fekk koo xam ni réew mépp du moom nga mooma waaye bu ni bu dawalee atum yàlla réew mépp ni mooma ndax yow yàlla yàlla guddal sa fan nit bu baax ku mën lu baax ku yaru ku yiw bëggoo loolu Serigne Fallou aw bu sa jëkkër bi càmmiñal ma dem Kounta yaay soxna Serigne Fallou ngay waaje Serigne Fallou ngay waaje Serigne Fallou ngay walle waaye Papa Diouf daara bi bee baas ni mu la defoon tey tey nga anniversaire bi waaye bés bu yàlla sàkk yéen dafa ñëw loo am bee baas téye ko kër ku fi ñëw tey Ousmane bëgg a dikkaat xam nga loolu loolu jigéen ju baax bu rees ci tey Ousmane bëgg a rees ci waat dafay fekk jigéen ju baax bu doon ku ci liggéey ngay gut pied ak gut waaye fii ñëpp ay dikk ñoo fekk ku jàng yàlla ku del safar joyeux anniversaire papa papa léegi mbooloo mi grand yi jógal grand ñëwal Allah léegi nag mbooloo mi alla de andiro Pape Diouf ne wani yeele yo kañu Pape Diouf kay léegi mbooloo mi ma ni grand bi fay bi maa ngi ñëw teew grand ma ni grand ma ni dëgg jawaan bay wax ma ni dëgg jawaan bi mooy wax holomi day kalane kamma yo mema tuuti ayo bébé passion xolo mi day bébé njini xolo mi seeri ma patuyo xolo mi day ma kolam no njini xolo mi day koma ma yero basio xolo mi day bébé njini xolo ku baab tuuf yàlla na nga dund xolomi tay am na njariñ xolomi tay ku nekk ñàkkuloo meeruloo xolomi tay mbir mi yàlla na nga dund xolomi tay haya bébé baas yoo nii la boo gisee ma ñëw fii am na lu tax bébé baas mii sama mbokk man maa wul waa waaye nag tey kii moom a yëkkati ni di wax yow bu bisam ñëwee nga ñëw daaw Cheikh Diallo bi salmi nii xam nga ma xam naa la jaar naa la. léegi sunu mag sunu kilifa mbooloo mi magi Papa Diouf mooy bëgg wax mbooloo Ismaïla Mbaye ñu déglu nag Papa Diouf sa dégg-dégg grand Ibra Ibra Gueye dëgg cawaan bi jàmm nañ ma xaasim ak Seynabou dañ ko déglu grand Ibra la wax sa rakk damay nuyoo ne day mbooloo mi ne kër goo gis am na buntu Papa Diop mais nuyoom da koy jël di ko teg ci Ismaïla Bass nee mu teel ko ci famille bi yëpp nee Papa Diop nag nee ba ñu ànd ñaar fukk ak ñeent muy fekk erreur ne fa yar bi rek Pape yar bi rek Abdou dignité beeg personnalité ba yar bi nii dara mënu laa changé dara barke rabbal kaaba dara mënu laa changé nii rek tout tout tout calme personnalité dignité war a way way way lu positif dem ñibbi war a jouer jouer lu positif dem ñibbi moo la may loo mën a moo tax gaa yaa ngi nii yemoon nañ sa xajoon nañ saal bi suuf doyoon waaye buntu kër gi kenn mënta dugg te barke rabal kaaba amul kenn ku fi ñëw ñëw fi lu naturel ba boy lépp naturel na saisi ñëw na saisi ak yow ci wax yi loolu lu mu doon Pape Seck daa dem ba tëdd ba deux heures du matin trois heures du matin mu woo ne ma li Pape Diouf def tey lan la ma ne ko beneen façade la ndaanaan bu fekkee benn melo rek la su dëgg-dëgg màgg na cinquante pour cent mbooloo mi ah. fii damaa namoon kër gi hmm. na ma dama ñaan yàlla ñëpp may ma rek ma wax ñaari baat su wayte sama xarit bii ngax benn biteelu meew dañ ko daan bokk ba quatre heures du matin te ci poosam loolu jóge boobu mi ngi yor yu bu rafet hmm. Honda bu rafet dëkk Maris lu yàggul nag waaye lu sa <laughs> dëgg-dëgg ne yàgg baax rek garaay si na. waaw maa koy dama ciy barkeelu. <laughs> hôtel bi ma nekkoon Màkka. Pullman lampe hall bi sa dëgg-dëgg ba ci salle bi nii la mel. moo tax may barkeelu ci lampe sama xel daa dem Màkka. mais Ndiawar. dama ne la. nga ne ma ñaari morso yii. sa dëgg-dëgg moom du duma ko duma ko fàtte ba ba may dee yaa ko wax fi mën na la rëkkante bi loolu Mor sa dootu ko def ci àdduna Mor Mor kay toog doy ça va mais ça c'est Mansour sama xarit Mansour Ndoye non cher cher non je t'en prie cher non Mansour Ndoye kii dafa bëgg Pape Diouf sans façon doomu tëngeej la doomu wàññi la c'est un grand transfert. Baba Maw garab garab keroog marché damaa génn damaa génn maanaam sama hôtel taxaw ci bunt bi ndee fekk ma ni may Ismaïla Mbaye lii ma ne ko Tafa Fall Bara ma dox ñaari paa tubaarkàlla maanaam ay milliardaire tubaab taxaw ni ma mais quel ma ne ko Sénégal ma ne ko Tafa a jaay réew mi bu jamaay waxee wala soo ko ma ne Tafa a ko jaay ma ne déeba waay doxaat ñaari paa taxaw ci buntu Sénégal ngir kii ñëw kan la. kon bi kan la. waaye waa jaaj. kon juuma. tamit moom réew mi la. waaw waaw. garab bi amul yàlla sëkkatalee. waaw. saa xeer Fatma ma ndaag ak ma bi mu daanoo. bi ko géwél yi bàkkee ba yëkkati géwél ne leen ma daanoo ñaawul. ñaawul ñu ko déedéet ñaawul. waaw Fall bu dul ay caaxaan. mu ne dajee sax waa xam fu ci sa jéy lañ bokk ñoom ñaar fàtte penn ma ñaar la su góor a jéy ñu ne déeta waaye Pape Seck di xaas alxuraan ñu ne góor a deer moor deer waaye deer ma ne yàgg na de ba pare dee na gën a am ci rajo yi. waaw moo fa nga Pape Seck di maye garaaj. waaw jeex na de boo ñëwee boo ma ne ma xam nga lu lay wax. waaw tuuti ma dugg laaj sama borom ba xam li ngay ñaan mën naa nekk tam déet. ba pare jërëjëf waay bu ñu bi génn yaa ngi dégg ñu ko. Ismaïla waaw xam nga milliardaire boobu ñu naan Dak Dame Fall. waaw ak mu bokkaat ak moom foofu ci ci Lissa Gueye. moo tax Bara Fall dafa sax yaa Pape Seck tubaab ko bi da ngeen a jago naa seen ànd bi diagonal la ko tubaab tuddee. loolu dafay ànd. sa simo la. wax moo baax. waaw xam nga ñoom ñaari ñaari ñaari kii daa doon na ñëw kii daa doon na ñëw. ba mu nekk. waaw bu bàyyeem ñëwaatoon direct la def si atelier ba toog. mu ne ana mu tax la ma nekkoon lépp soppi na ko. lu baax dafa doxoon tong ba atelier ba delluwaat fa mu newoon. waaw bu tax ba mu mën jamono. te kat kaa na jël la ñaar xamulu échec sa baay échec nga bàyyi li fi bàyyi mu naax sa lailaila waaye moom mii loolu ko de moo dal Ismaïla Bass meen ko waaw la de baayam baayam yoro Bass li fi bàyyi fexe na ba laalu suuf nga jëm waaw kër gi rek bis bi laa jëm état boo xam ne kenn parce que baax nga xam ne fii lu ànd ak coow bëggul def lu baax ak calme waaw waaw wax ci bare du moom waaye bu jëppee moom bëggul waaye moi te kan loolu rek lu baax say bokk du ko njëkk doo sàmm alal wayu taxu laa jóg waaye dafa faal baale ku ci dafa faal baale ku ci bu baax sa sourire sa sourire sa sourire ak kenn bu baax dafa waaw gaa yaa ngi waaye léeg-léeg ñu ngi président ADESPA. waaw ndax euh, keroog comme président de la république di recevoir. waaw danañ fekk tubaarkàlla macha allah ñu def benn bloc visa yu kenn ñu war a wane seen bopp bitim réew. waaw. waaw di ngeen di di wër. visa. ndax sa dëgg-dëgg nag li ñu yor xale. xam nga kii fay bopp boobu ak kii xaar weer ñoom dañuy weer weer day jot ñu fay entreprise du ay caaxaan baal kutil boo demee sa dëgg-dëgg ki ne ci comptoir bi bokkul ak personnel bi ne ci biir. waaye ñëw fa. <laughs>

man dama jàng intellectuel de haut niveau man li ma indi fii samay diplôme dugg ca saa yi naan kafe sa doon bi chef bi ñëw jël si ne ko ça va bien Sali c'est c'est ne ne ko ak papa bu mu ah, rek lekk mais xam nga dafa tàmm mi ngi yor ba kaas kafe gi yor yi mu ne man oore yi xaw ma nu ma koy def. jege sa sama Amadou Yàlla Matar saa xel fat gàttal mu ko rëcc dawraat dafa yor doon njoojam njoojam doog bi li ma naan tuñu gàttal mu ci wàllu law jàmm kii la xale yi bëgg yow nee naa ko bàyyi kenn nee naa ko bàyyi kenn vingt-deux heures dimanche sotti la def laal na ko baaxal daay bi bëgg a wàcc ma ne Pape Seck mu naa ma ne ko wane na ma dugg ci biir kaw prix baax noonu la def liggéey yi Baara Fall Baara Couture damel Samba Yaay Fall damel ma ko ci damel ma Samba Takko Issa Dieye Fati Penda ma ñaan sukaar Ngoone Dieye keroog bi nan si di sakk jabar dane ma nu may def avant nga wax mu ne ma damel laa ma ne ko mu ne ma dama yóbbul nen ay millions ma ne ko boole ci nag fekk dàq na bu yàgg ndekete woo na Pape Seck Touba Couture ne ko man maay président ADES man mais nee na c'est mon frère monsieur nous sommes des jumeaux lu ne def na keroog. ba mu yàgg mu dugg ci sa jëy fàtte penn ma ñaan la sukaa bu ngoon a jëy xam nga dama sëy daa mën a way mën a mën way def mën a ko xarul mën a ko bu doon kajoor la da ngay dagg sa nopp joxe bu dara mu ne ma yor naa lu ma maye. nee na ëmb ko foto yaa tar ko ëmb ko parce que tubaab ku ci tar ko ñu song ñu song dama sëy mu rëb. garab tubaarkàlla macha allah borom këru dama sëy daa daa ëmb jool bi di tullil dama sëy ndax bëgg ci bés bi. moo ko doon jëkkul gis nga jéey fàtte penn maa ñaar. lan su kaa bu ngóor a jéey. man daa gën ma rey baax rek penn bu yee set bi la ma doon jox li ma jox barki démb jeexagul réunion nañ ci màggal gi de dafa sekk woo na ma léegi ne na ma dafa faat baar bu jóg ades ma ak Pape Seck du baax bu jóg ne na ñooy mu ne ma suivi ngi ni yokku naa ko loolu loolu du tey moo mën a way waaye nag xam loo bëgg yi nañ dekkalaat ak xëlse bi décalage ko. nañu woo télé yëpp. Ah. ñu ñu morceau rëkkante bi clip bi. Ah. ñu décalage ko <laughs> loolu morceau laa ko. eh sunu papa yi Ndiaye ñoo ko yi ñu de. yàgg na yàgg na yàgg na. yàlla nga gudd fan. maa ko may jabar benn koro laa muy man. maa ko may sama sœur bi muy am 32 ans. paa bi di ko taw. ñu màggat nit. sëñ bi naa ma sëñ bi xew bi dafa laaj ko laaj ko nee na ma jàkk suuf ne góor gi rek day laaj ay pot dañoo mu ne ma moom waaye yor naa mais neewoon neewoon naa ko dix ans mu gaare. dix ans la ko lekk sër bi lekk na ko. waxoon naa ko dix ans mu mu mu sirote la wax naa ko keroog. dëkk sama sœur barke Rasulullah sama sœur. mais eh, borom Serigne. waaye Serigne. ñaareel xel dëgëram. Serigne Serigne Serigne. ndax suba ma daa jóg suba teel. léegi ma daa si la xarit Diop. mi ngi ñëw fii fii nii ew. waay waay waay waay waay waay dina ma taal waay Serigne waay waay Serigne waay di jëli waay Serigne Touba Mbaye. borom Diouf day wan dëgër ci lim ko defal. Pape Diouf naan naa ne ko saa yore waaye Bébé Bass surprise bi man la. waaye Bébé Bass naa la ni surprise bi man la. waaye jabar it na la bàyyi xel. waaye jabar si biir mbay mi trop trop. dama ni jëkkër na la ñëpp waaye jabar na la bàyyi xel. waaye Bébé Bass surprise bi. bas waay la bay mu baax waay bébé bas waay mu gore bébé bas waay mu man lu baax waay bébé bas waay ba kat bon ba yaay moom nag bi yàlla dogal ne ñaar yàlla boole de waaw fexe ne barkal ma sha Allah xam ne baax mooy jamono Papa Diouf waaw lu bébé bas am Papa Diouf jël nii waree ne ko waay yaay la yow la bas di prise waay waay surprise waay surprise waay surprise waay surprise waay surprise waay surprise waay waaw bëggal Pape rek bëgg naa la bëggal Pape rek bëggal Pape rek deme baas bu baax defe naa ne tey Papa Diouf. waaye alaaji Papa Diouf. ndaanaan li daje fii. waaw waaw ndaanaan li daje fii. waaw di sa njaboot la ñu bokk. waaye Aliou Seye Baye. waaw mais Baye bu ñu naan Papa Diouf. waaw da ko bëgg a wan ni ko. waaw man heure bu ne. waaw saa su ne Papa Diouf rek. waaw la ko waxoon rek la ko waxee. waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw

waaye yaa sagal sa borom këram. Bébas yaa am jom yaa bari valeur yaa bari personnalité. da nga Ismaïla Mbaye Bébas li nga wax Papa Diouf. waaw bis bu la la sàcc ñu la dund ak moom. waaw waaw kër gi bis bu la la sàcc ñu la demee. waaw waaw sàcc suñu fête ak suñu anniversaire. waaw waaw waaye Bébas waayi. xam nga loolu lan la si jub. waaw fexe naa laa war a jot. waaw balu Papa Diouf am. téye na ko téye na ko Bébas bu Papa Diouf am. waaw téye na ko Bébas ndey bi seet la. waaw waaw ndax demba ci bët Togo Mbaye waaye bi ci baaleen demba ci bët Togo Mbaye waaye bi ci baaleen kon ñu ma terreur demba baas ba fa juf dal loolu di waaw li ma wax léegi tubaar gala waaw sama daana li ci suba mën naa ko koo wax waaw c'est l'expérience waaw c'est la différence waaw dal na allah di papa juf dal dama ni joyeux anniversaire yaa ngi ko baax yaa ngi ko baax waaye dama ne. parce que moom maa demee baas. waaye ndax bu ñu waaw Pape Diouf dama ne. demee baas. jàngal la jënd ministre. waaw waaw Yves. Arabet Burodi. Burodi. Arabet baas maanaam nii. waaw. waaye Sénégal maa ngi ko doon baas. dama ne dama ne di nga yàgg nag. di nga yàgg di nga doon. parce que da nga am jàmm. da nga am tawfeex. gis nga réew mi gis nga micro bi la yàlla def. micro bi la yàlla def. li ko bii la yàlla jox. waaw laaw la cat. waaw bi la ko suñu borom joxee. waaw nga liggéey ci baax si fii nga ci tool. fa woo dara yet. dañ ko xeexe. yaa ngi ciy jaamu yàlla. yaa ngi ciy dimbali ñëw mu doole. fexe nga laaw la cat nag mu dégg dégg. alal ji bopp gis naa la baay. waaw bu wax ci bëree. waaw du Papa Diouf. bu wax ci ñaawee. waaw waaw Papa Diouf. waaw waaw bu wayi neexee. waaw Papa Diouf. waaw waaw alal ji bopp Diouf dara. waaw waaw kon nga ko baax. Papa Diouf. Papa Diouf. ba dama ne bu wax ci rafetee yow bu wàllu météo yow bu plus de kontaanee yow dama baax nag ñu war a def waaw nga lay wax ne ñoom bëgg naa dëgg la dama maa nag ba tey ba tey ba tey day wis ba tey day wis ba tey day wis ba tey day wis. nga ne ko. xale yaa ngi ba tey day wisite. day wisite ba tey day wisite. waay ceeb waay. waaw xoolal nga. waaw xoolal nga. kontaan naa kontaan naa bëgg naa lool kontaan naa vraiment.

Awa Baldé sama xarit non elle est beaucoup elle est beaucoup elle est trop belle Awa Baldé

DJ Yves. Ben Nourou là. Comment tu vas mon frère? c'est bon. Pape Seck c'est bon. yaa invité d'honneur bi ah. wala yàlla dogal ah. nga ne kat mooy invité d'honneur bi. Pape Seck Touba Couture. moom la ñu def invité d'honneur. invité d'honneur ak nag borom takkusaan yi. bu mag a mag. ah non boo boo mos a jël alaasam doo waaw booy. bu la nee barki sëñ Mudu bi Mbàkke jeex na. Hmm. bari jom. ban combat moo la gën a nekk ci combat. dama ne kii. ban takku saanam moo la gën a nekk. dafa tekk kenn yàlla. saanam ak Tafa Gueye donte sax. Tafa Gueye du daan waaye loolooy làmb. waaye bu njëkk bi. ndax topp na Tafa Gueye menacé ko. yaa may dégg dugg ci gàttam avancé ko. Hmm. Fass jóg. Hmm. ñu sot. waaw. yàlla fay ko ci Bombardier. takkusaanam nga bu doy na sëkk ma ne bés bu bés bés bu yàlla def rek mu ngi lay xaarloo beneen mburoo bi ñu ne deete waaye le président yu suma jigéen na ko ñëwal Bercy ndax nag mburoo di waaw nga tee loolu yaa ko ndëj biir ban a dem gaar jëm ayir ba ay si ñi moom ma a taal di nga it waaw kii dama bëgg ñu def plateau man ak moom ñu jàkkaar mais ci moom la des président yi loolu champion defal guddi. déjà maa ngi koy invité déjà. non kii sama waay la. ñoo bokk doomu Pikine la suma nit la. ñu yarandoo yàgg lool. Uh-huh. dañ ko def si jaar sëñ Modou Abib Mbacke Mawla Moussa yàgg na. Eh, mais bu neexee sëñ Tuubaa yow moom. tànnal jour bi tànnal jour bu la neex. tànnal loolu la neex. tànnal loolu la neex. DJ Yves tànn ko ma génn palmarès am. dama bëgg ñu honoré ko ci plateau lu dul ñu honoré ko. mais loolu mooy nag. mais ki li fi mu fi def kenn def ko. boo jëlee am doo nelaw. waaw mbër mbër mu ko gën a ñeme entraînement amul. déedéet da doon xaru. da doon yéeg diin bañ na ko doy na bay fisir. Mm-hmm. ay tamit fàtte xeju fi. man ku ma bëgg a fàttaloo al El Hadj Diouf l'international ak Baboy yi ma xaaru sa kaw the king of the président Ousmane Digène waxuma tey tànk rek kenn piano piano day waaw

Bye. vraiment kontaan. yéen ñu baax ñu am jàmm ñu waxaat waxaat. jàpp si yëpp rek lépp. dama ne benn bas. parce que lii mu def. ay bay seen prix bi rek. ñu jàpp ba ba ba ñu ko doon bàyyi ci sa benn bas. waaw xam nga laa lekk si ñun. waaw bëgg naa bëgg naa bëgg naa bëgg naa bëgg naa bëgg naa bëgg naa Thank you. Simon ça va mais mais surprise c'était bon yëguma ci dara ak normal lu ñu def quoi vraiment. mbooloo mi. waaw. jotaay bi sa dëgg-dëgg daal c'est émouvant. Hmm. ba Pape Diouf mënatul a téye ay kàddoom. Hmm. nee na day nuyoo. joxe kàddu doo am lu mu dégagé balaa ñoo reer. waaw kon ñu déglu loolu. waaw mais xanaa kontaan rek ak xol bu fees. ne kontaan ak xol bu fees rek. vraiment parce que lii sa xaaru ko woon nag. nee na daal sa dëgg-dëgg lii xaaru ko woon de. madame moo créé lii yëpp. ne sa dëgg-dëgg nag la princesse ajaratu bébé baas moo créé lii lépp. man man man dox ci guddi quoi. ne ku xam Papa Diouf. xam ne moom du dox ci prix yii. franchement mais nag bon nit ku nekk moom. franchement waaye ne nit ku nekk moom. lii sa destin ñëw dal sa kaw. ne lii sa destin ñëw dal sa kaw mu ne ko mu ne ko lu dul nga ngay bàyyi mu atteindre la. maa ngi koy sant di ko gërëm. ne mi ngi sant bébé Bass di ko gërëm. di sant grand frère am Ismaïla muy seen taaw. ne di sant nag le président directeur général Ismaïla Baas. magam ju baax ci seen taaw nga xam ne tànkuwul dara ci kër kër. moom moom du sama goromee suma mag la. ne sa digg-digg daal Pape ne doo gorom waaye magam nga. ak seen famille yëpp famille Baas. ak la famille Baas toorandoo yëpp nag Adama ay sa cërno cërnaa bi yu ma mujj baax mujj bëggal boole taaba. Eh, eh, jawwa hawa. non <laughs> dañoo nëbb bébé Baas ñun. sërëm sërëm yaa ngi fii. ne sërëm yaa ngi fii. mbokkam yaa ngi fi. nee mbokkam yaa ngi fi. ñëpp a ngi sa dëgg-dëgg ñëpp a ngi fi. man mbokk yaa ngi fi. nee moom sa dëgg-dëgg mbokki Pape Diouf yi ñu ngi fi. sama rak yi. nee rakam yaa ngi fi. sama xarit yi. nee xaritam yaa ngi fi. sama sama fans yi. nee fansam yaa ngi fi. ñooñu nag ñooy sama famille. nee na nag ñooñu ñooy famille grand grand grand yi. mooy ñi ma entouré. nee na nag sa dëgg-dëgg mooy ay si yi nga xam ne ñoo ko entouré. sama dëkkandoo yi. nee dëkkandoom yi tonton euh, euh, Ibou Ndiaye ñoo ko bàyyi. ne suma papa sama goro sama xarit tonton Ibou Ndiaye ñoo bàyyi ngi ni toog. bu baax ne muy sunu baay bu baax. mag ne ku di ko mag bi ñu fi ñëwee ba léegi. ne bi ñu fi ñëwee ba léegi. wax dëgg yàlla wéetuñu. baaboo yi ngi nii. ne le champion borom takku saa ni baaboo yi ngi nii toog. ku may woo di ma laaj sama kër sax. ne ku may woo di ma laaj sama kër sax. dama la naan laajteel kër baaboo yi. moom mooy chef de quartier. moom mooy chef de quartier bi. mu mate ko nag. nee mu mate ko nag. lu fi xew. lu fi xew. damay tukki sax ma ñëw ñu ne tonton baaboo ñëwoon na. damay tukki sax ñëw ñu ne ma tonton baaboo ñëwoon na fi. te moom Pikine moo ñu boole. te moom nag Pikine nañu boole. muy gor gu set muy gor gu set wicc. ku baax nee ngay ku baax baaboo sa soxna baax. vraiment ko fay. vraiment daal sa digg-digg démb ñi ngi jokkoo laa fay. waaw gaa yëpp ngi fi. nee gaa yëpp ngi fi. ñoom Pape Seck. ah sama DG président Bara Couture Ibra Gueye Ibra Gueye sunu mag sunu kilifa mooy sama jumeau nee na yaay jumeau grand ah, xam nga di yaa ngi ne toog ne di yaa ngi nii toog Pape ñëw na ak famem ne Pape ñëw na ak famem sama xarit Ablaye Tine sama xarit Ablaye Tine mais nag moom surprise am lu ma neex la ne Ablaye nag surprise bi nga defal Pape lu ko neex la Ibra parce que xam naa ne moom amul jot Ibra nag xam naa ne moom amul jot waaye Tine nga bàyyi lépp nag Tine waa enseignement supérieur. nee nga ànd ak enseignement supérieur Mbodj Fara. ñoom kati ak ñoom ma Mbodj. sama mbokku géwél yi. nee may nuyu nag sama mbokku géwél yi. ndax nag nit ku nekk. nee nit ku nekk. sa askan. sa askan. moom sa empire. nee sa dëgg-dëgg mooy sa empire. muy sama rakk yi. Ismaïla ak mooy ñoom Ismaïla Mbaye ak Modou Mbaye ak Medoune. Medoune ngi nii taxaw. Medoune ngi nii taxaw suma xarit. Abdou sama simon Abdou Faye. xam nga sa waay nag moom ñoo xam nga loolu dafa doy waar nee na ñoo ne ci benn rek. da doon génne xale yi ne nañ dem géej. récréation xam nga daa ci géej gi sangu ñaari sangu dëgër ñëwaat. ma ne ko Pape ah arrêté monsieur Touré ak lay gisee. sama doom la nee na kii doomam la kii mooy alaaji njaay moom laay woy si góor day dëgër moom ndeysaan kii mooy alaaji njaay góor day dëgër muy xale boo xam ne muy xale boo xam ne daf ma yàgg bëgg alaaji njaay da nga yàgg bëgg pam kii amul ci man sago mais Pape amul ci amul ci moom sago mu ànd ak soxnaam ak famille mu ànd ak soxnaam ak famille moom tamit Marème a ngi nii moom it mais Marème a ngi nii Sall Ngaari moom it fans yaa ngi ci kaw mais fans yaa ngi ci kaw ñu ngi ci suuf ñu ngi ci suuf waaw tey famille bi ñëpp a ñëw tey famille bi ñëpp a ñëw waaw Ismaïla moom it mi ngi ànd ak soxnaam Ismaïla Baas mi ngi ànd ak soxnaam Marème ñoom Kumbis ñoom Habi ñoom Kumbis ñoom Habi Kadiata man daal kontaan naa trop ñoom Biyaay ñoom Simon ñoom Kadiata Biya Biya moom mooy góoru Simon ah Biyaay Biyaay moom mooy góoru Simon moom waaw vraiment tey moom bés bi moom Ismaïla dama kontaan yaay tey moom Ismaïla bés bi daa kontaan Ismaïla Bass. j'ai même pas les mots. j'ai tey dama kontaan Ablaye. Yves je suis très Gaucher moom it. mi ngi toog Mansour. ñu ci yoon bi. xam nga vraiment mënu ma sax lim. parce que nee Pape Diouf nee sax lim. si ni nit bu sa xol feesee. nee si ni bu nit sa bu sa xol feesee. doo mën a wax. doo mën a wax. te man ku ma xam-xam ne. ku ma xam-xam ne. yii sax du ci dox. yii sax du ma ci dox. mais nag sa njaboot honoré waaye sa njaboot bu ñu lay honoré ne la par force mënoo ci dara ne la par force ci dara yàlla moo la teg fii yàlla moo la teg fii ku xewle ku xewle nga defal ko vidéo nga defal ko vidéo wayal ko kon ñu nit boo xewlee ñu nit boo xewlee suñ la bëggee defal sa anniversaire suñ la bëggee defal sa anniversaire surprise la ko donc nii la demee quoi nii la demee mais ñëw ñëpp maa ngi leen di sant di sant leen gërëm rëccuwuma lu ma leen xamee rëccuwuma lu ma leen xamee am solo la ay souvenir yu am solo la ànd ak yéen. kontaan naa lool vraiment bëgg naa lool di ñaanal ñëpp nag. yàlla yokk leen. barkeel seen njaboot barkeel seen njaboot. vraiment ba jéego yi ngeen vraiment ba jéego yi ngeen bëgg. ñëw ci kër gi. ñëw ci kër gi. yàlla na ko yàlla def ay yiw. yàlla na ko yàlla def ay yiw. kontaan naa lool kontaan kontaan na lool. di sant nag sama soxna bu baax. di sant nag soxnaam bu baax a baax bébé baas. parce que parce que coono yi mu daj. a fekk. mënoon ci bañ a fekk ñëw xamal. waaw coono yi nga daj yëpp. coono yi bébé soxlawul dara. bébé soxlawul dara. bëggul ma mer. nee na bëggul mu mer. bëggul ma stressé. bëggul ma stressé. day dem ba léeg-léeg sax damay jotee ak moom parce que tellement. na day dem léeg-léeg ma jotee moom parce que tellement. day dugg ci liggéey bi. nee day dugg ci liggéey bi. ba nga xam ne. ba nga xam ne. léeg-léeg dama naan li cofeel la rek. dama naan li cofeel la rek. ak engagement. ak engagement. kon donc. kon donc. moom vraiment maa ngi ñaanal. moom vraiment ñu ngi ñaanal bébé baas bu baax. que. taxawaayam ci njaboot gi. ne taxawaayam ci njaboot gi. rafetlu naa ko trop ne moom Papa Diouf rafetlu na ko trop. kon donc vraiment. kon donc vraiment. loolu tey occasion la. na loolu daal sa dëgg-dëgg tey occasion la. dama koy wax ci ay kanamu mbokk. ne sa dëgg-dëgg man dama ñi ko jox maay kor laa kan duma lebal barke Rasulullah jimis mu tudd ma la fay. wax wax naa ko fu ne mais lu baax. ne wax naa ko fu ne waaye lu baax. du doy. parce que tey bu ñu demee. tey bu ñu demee. ba àdduna bi ñu ci bari. ba àdduna bi ñu ci bari. di jël référence ci suñu diggante. di jël référence ci suñu diggante maag bébé baas. c'est parce que loolu dafa naturel. c'est parce que loolu dafa naturel. ku ci nekk da nga fonk sa morom. ku ci nekk da nga sa morom. respecté ko. respecté ko. gëm ko. gëm ko. ba pare di ko dund. ba pare di ko dund. loolu moom. donc loolu moom. yàlla mooy def loolu quoi. yàlla def loolu quoi. maa ngi maa ngi nuyu nag sama xarit. yëpp nee mi ngi nuyu xaritam yëpp. ndax baaboo ñii laa am. nee baaboo ñii su ma xewlee. su ma xewlee. ñoom dañuy ñëw. ñoom dañuy ñëw. lu ñu dégg. lu ñu dégg. su amee bu amul. su amee bu amul. dañuy sonn. dañuy sonn. léeg-léeg sax dañ may woo su ma damay reetaan. léeg-léeg dañ may woo suñu ma woowee damay reetaan. Euh, ku yàgg a jaaru da ngay xàmmee taal bu boy. ku yàgg a jaaru da ngay xàmmee taal bu boy. man leen nit ku siiw. man leen nit ku siiw. pareel pour dégg lu ne. pareel pour dégg lu ne. encaissé leen rek. encaissé leen rek. après la vie continue. après mu jàll la vie continue. mais vraiment maa ngi leen di sant. vraiment maa ngi leen di sant leen gërëm. kontaan naa lool wax dëgg yàlla kontaan naa lool wax dëgg yàlla. kontaan naa merci beaucoup. merci beaucoup mais lii mooy dëgg. lii mooy dëgg mon frère. dama ne. bu la nit ñi bëggee. toog la fii toog ci salle bi di la xaar. boo ñëwee boo leen waxul dara ñaari baat buñ deewee yaa leen rey. ngeen toll li mooy dëgg. affaire yi mi ngi ñëw. ok Pape Cheikh moo lay nuyu. Eh. Oh. <laughs> Oh. mais je prête. nangu naa la. mais mais mais mais merci beaucoup jeune frère. merci beaucoup Pape. waaw waaw waaw waaw benn séeréer euh, baax. <laughs> c'est bon. mbooloo mi. waaw. jotaay bi sa dëgg dëgg daal seen émouvant. ba Pape Diouf mënatul a téye ay kàddoom. nee na day nuyoo. joxe ay kàddu doo am lu mu dégagé balaa ñoo reer. kon ñu déglu loolu. waaw mais xanaa kontaan rek ak xol bu fees. ne kontaan ak xol bu fees rek. vraiment parce que. lii sax xaaru ma ko woon nag. nee na daal sa dëgg-dëgg lii xaaru ko woon de. madame moo lii yëpp. ne sa dëgg-dëgg nag la princesse ajaratu bébé baas moo lii lépp. man ma xam du ma dox ci bruit quoi. ne ku xam Papa Diouf xam ne moom du dox ci bruit yii. franchement mais nag bon nit ku nekk moom. franchement waaye ne nit ku nekk moom. lii sa destin ñëw dal sa kaw. ne lii sa destin ñëw dal sa kaw mu ne ko mu ne lu dul nga ngay mu atteindre la. waaw mi ngi sant bébé Bass di ko gërëm. di sant grand frère am Ismaïla muy seen taaw. ne di sant nag le président directeur général Ismaïla Baas. magam nga xam ne tànkul dara ci kër kër. moom moom du sama goromee suma mag la. ne sa digg-digg daal Pape ne doo gorom waaye magam nga. ak seen famille yëpp famille Baas. ak la famille Baas toorandoo yëpp nag. Adama ay sa Thierno Thierno bi yu ma mujj baab mujj bëggal eh, eh, <laughs> Baas ñun. mbokkam yaa ngi fi. nee mbokkam yaa ngi fi. ñëpp a ngi fi. nee sa dëgg-dëgg ñëpp a ngi fi. man sama mbokk yaa ngi fi. nee moom sa dëgg-dëgg mbokki Pape Diouf yi ñu ngi fi. sama rak yi. nee rakam yaa ngi fi. sama xarit yi. nee xaritam yaa ngi fi. sama sama fans yi. nee fansam yaa ngi fi. ñooñu nag ñooy sama famille. nee na nag ñooñu ñooy famille grand grand grand yi. mooy ñi ma entouré. nee na nag sa dëgg-dëgg mooy ASC combattant yi nga xam ne ñoo ko entouré. sama dëkkandoo yi. nee dëkkandoom yi tonton euh, euh, Ibou Ndiaye ñoo ko bàyyi. ne suma papa sama goro sama xarit tonton Ibou Ndiaye ñoo ko bàyyi nga ni toog. bu baax ne muy sunu baay bu baax. mat kilifa ne ku dikku mat kilifa. bi ñu fi ba léegi. ne bi ñu fi ñëwee léegi. yàlla wéetuñu. wax dëgg yàlla wéetuñu. baaboo yi ngi nii. ne le champion borom takku saani baaboo yi ngi nii toog. ku may woo di ma laaj sama kër sax. ne ku may woo di ma laaj sama kër sax. dama la naan laajteel kër baaboo moom mooy chef de quartier. nee moom mooy chef de quartier bi. mu mate ko nag. nee mu mate ko nag. lu fi xew. lu fi xew. damay tukki sax ma ñëw ñu ne tonton baaboo ñëwoon na. damay tukki sax ñëw ñu ne ma tonton baaboo ñëwoon na fi. te moom Pikine moo ñu boole. moom nag Pikine nañu boole. muy gor gu set wicc. ku baax nee ngay ku baax baaboo yi. jabaram baax sa soxna baax. vraiment ma ko fay. vraiment daal sa digg-digg démb ñi ko jokumaay mun laa fay. waaw gaa yëpp ngi fi. nee gaa yëpp ngi fi. ñoom Pape Seck. ah sama DG président Pape Seck Toubacouture président Bara Couture Ibra Gueye Ibra Gueye sunu mag sunu kilifa muy sama jumeau nee na yaay jumeau grand ah, xam nga di yaa ngi nii toog nee di yaa ngi nii toog Pape ñëw na ak famem nee Pape ñëw na ak famem sama xarit Ablaye Tine sama xarit Ablaye Tine mais nag moom surprise am lu ma neex la nee Ablaye nag surprise bi nga defal Pape lu ko neex la Ibra parce que xam naa ne moom amul jot Ibra nag xam naa ne moom amul jot waaye Tine nga bàyyi lépp nag Tine ànd ak waa enseignement supérieur. nee nga ànd ak enseignement supérieur Mbodj Fara. ñoom kati ak ñoom maa ñoom kati ak ñoom man ma Mbodj. may may sama mbokk géwél yi. nee may nuyu nag sama mbokk géwél yi. ndax nag nit ku nekk. nee nit ku nekk. sa askan. sa askan. moom a sa empire. sa dëgg-dëgg mooy sa empire. muy sama rakk yi. muy sama rakk yi. muy ñoom euh, Ismaïla. ak mooy ñoom Ismaïla Mbaye ak Modou Mbaye ak ngi nii taxaw. suma xarit. Abdou Faye. nee sama simon Abdou Faye. xam sa waay nag moom ñoo bokkoon école. non xam nga loolu dafa doy waar nee na ñoo bokkoon classe. Pape loolu daa doy waar. Ismaïla. Ismaïla damay bàyyi ba ñëw sa bureau ne tege loolu. mais Ismaïla damay la ci benn rek. da doon génn xale yi ne lëngëm géej. déclaration xam nga daa gàtt ci géej gi sangu ñaari sàmm dëgër ñu am ma ne ko paam ah arrêté monsieur Touré ak lay gisee. kii moom sama doom la. nee na kii doomam la. kii mooy El Hadj Ndiaye moom laay woy si góor day dëgër moom. ndeysaan kii mooy El Hadj Ndiaye góor day dëgër. muy xale boo xam ne. muy xale boo xam ne. daf ma yàgg bëgg. El Hadj Ndiaye da nga yàgg bëgg paam. kii amul ci man sago ne Pape ci amul ci moom sago mu ànd ak soxnaam ak famille mu ànd ak soxnaam ak famille moom tamit Marème a ngi nii moom it ne Marème a ngi nii Sall Ngaari moom it fans yaa ci kaw ne fans yaa ci kaw ñu ngi ci suuf ñu ngi ci suuf waaw tey famille bi ñëpp a ñëw tey famille bi ñëpp a ñëw waaw Ismaïla moom it mi ngi ànd ak soxnaam Marème Ismaïla Bass mi ngi ànd ak soxnaam Marème ñoom Kumbis ñoom Habi ñoom Kumbis ñoom Habi Kadiata man daal kontaan naa trop ñoom Biyaay ñoom Simon ñoom Kadiata Biya Biya moom mooy góoru Simon ah Biyaay Biyaay moom mooy góoru Simon moom waaw vraiment tey moom bés bi moom Ismaïla dama. kontaan biyaay tey moom Ismaïla bés bi daa kontaan Ismaïla Bass. j'ai même pas les mots. j'ai même pas les mots. Yves tey toog Mansour ci yoon bi. xam nga vraiment mënu ma sax lim. parce que nee Pape Diouf nee sax lim. si ni nit nit bu sa xol feesee. nee si bu nit bu sa xol feesee. doo mën a wax. doo mën a wax. te man ku xam-xam ne. ku ma xam-xam ne. yii sax du ci dox. yii sax du ma ci dox. mais nag sa njaboot buñ lay buñ honoré waaye sa njaboot bu ñu lay honoré ne la par force mënoo ci dara ne la par force mënoo ci dara yàlla moo la teg fii yàlla moo la teg fii ku xewle ku xewle nga defal ko vidéo nga defal ko vidéo wayal ko. kon ñu nit ñu nit boo xewlee. suñ la bëggee defal sa anniversaire. suñ la bëggee defal sa anniversaire surprise la ko. donc nii la demee nii la demee. mais ñi ñëw leen di sant. ñi ñëw ñëpp maa leen di sant di leen gërëm. rëccuwuma lu ma leen xamee. rëccuwuma lu ma leen xamee. te ay souvenirs yu am solo la. ay souvenirs yu am solo la ànd ak yéen. kontaan naa lool kontaan naa lool. vraiment bëgg naa lool di ñaanal ñëpp na bëgg naa lool di ñaanal ñëpp nag. yàlla yokku leen. yàlla yokku barkeel seen njaboot barkeel seen yi ngeen jóg vraiment ba jéego yi ngeen bëgg ñëw ci kër gi ñëw ci kër gi yàlla na ko yàlla def ay yiw yàlla na ko yàlla def ay yiw kontaan na lool kontaan na Pape Diouf kontaan lool di sant nag baax di sant soxnaam bu baax a baax bébé baas parce que coono yi mu daj ne coono yi mu daj mënoon na ko ci bañ a fekk mënoon na ko a fekk ñëwal waaw coono yi nga daj yëpp coono yi nga daj yëpp bébé soxlawul dara bébé soxlawul dara bëggul ma mer nee na bëggul mu mer bëggul ma stressé bëggul ma stressé day dem ba léeg-léeg sax damay jotee moom parce que nee day dem léeg-léeg ma joteeg moom parce que tellement. day dugg ci liggéey bi. ne day dugg ci liggéey bi. ba nga xam ne. ba nga xam ne. léeg-léeg dama naan li cofeel la rek. dama naan li cofeel la rek. ak engagement. ak engagement. kon donc. kon donc. moom vraiment maa ngi ñaanal. moom vraiment ñi ngi ñaanal bébé baas bu baax. parce que. taxawaayam ci njaboot gi. ne taxawaayam ci njaboot gi. rafetlu naa ko trop mais moom Papa Diouf rafetlu na ko trop. kon donc vraiment. kon donc vraiment. loolu tey euh, occasion la. nee na loolu daal sa digg-digg tey occasion la. koy wax si ay kanamu mbokk. nee sa digg-digg man dama njëkk a jóg maay góor laa kan duma lebal barke Rasulullah ci mis mu tudd ma la fay. wax wax naa ko fu ne mais lu baax. ne wax naa ko fu ne waaye lu baax. du doy du parce que tey bu ñu demee. tey bu ñu demee. ba àdduna bi ñu ci bari. ba àdduna bi ñu ci bari. di jël référence ci suñu diggante. di jël référence ci suñu diggante maag bébé baas. c'est parce que loolu dafa naturel. c'est parce que loolu dafa naturel. ku ci nekk da nga fonk sa morom. ku ci nekk da ko. respecté ko. gëm ko. gëm ko. ba pare di ko dund. ba pare di ko dund. loolu moom. donc loolu moom. yàlla mooy def loolu quoi. yàlla mooy def loolu quoi. maa ngi maa ngi nuyu nag sama xarit yëpp. nee mi ngi nuyu xaritam yëpp. ndax baaboy ñii laa am. nee baaboy ñii laa am. su ma xewlee. su ma xewlee. ñoom dañuy ñëw. ñoom dañuy ñëw. lu ñu dégg. lu ñu dégg. su amee bu amul. su amee bu amul. dañuy sonn. dañuy sonn. léeg-léeg sax dañ may woo su ma woowee damay reetaan. léeg-léeg dañ may woo suñu ma woowee damay reetaan. Euh, ku yàgg a jaaru da ngay xàmmee taal bu boy. ku yàgg a jaaru da ngay xàmmee taal bu boy. man leen nit ku siiw. man leen nit ku siiw. pareel pour dégg lu ne. pareel pour dégg lu ne. encaissé leen rek. encaissé leen rek. après la vie continue. après mu jàll la vie continue. mais vraiment maa ngi leen di sant. vraiment maa ngi leen di sant leen gërëm. kontaan naa lool wax dëgg yàlla kontaan naa lool wax dëgg yàlla. kontaan naa merci beaucoup. merci beaucoup mais lii mooy dëgg. lii mooy dëgg mon frère. dama ne. bu leen nit ñi bëggee. toog la fii toog ci salle bi di la xaar. boo ñëwee boo boo leen waxul dara ñaari baat buñ deewee yàlla rek. ngeen toll li mooy dëgg. affaire bi mi ngi ñëw. ok Pape Cheikh moo lay nuyu. mais j'ai frère. nangu naa la. mais mais mais merci beaucoup monsieur frère. Eh, benn benn benn séeréer